صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر fii ñu nekk mooy université Cheikh Ahmadoul Khadim waaw bi ñu dikkee ci mbale mi ànd ak Baye Fall yi le 2 ak le 3 safar ñi lekk yor projet bi dañu sollicité woon parce que efr bi nekk suñu ginnaaw nga xam dañ ko bëgg a ubbi ci at mi ñu jublu at euh, année académique bi dañu sollicité woon pour que ñu defee ay terrassement ndax terrain bi ni meloon praticable woon donc bi ñu dikkee nañ ci mbay ci ci euh, bi ñu tonni terrassement ci zone bi ba nga xamni bu tawon tay routes ndox mi du dina dem ci zone nga fa def aussi route d'accès ak voirie interne bi bon le chemin en terre lañ pour l'instant mais dina permettre au moins mu mën circulable ba comme période hivernale lañ nekk auto euh, dina fi mën a dugg mën a sans nga am problème bon ñi ndongo yi nek wara jang tamit dinañ mën nek ci université bi sans sans problème parce que c'est un projet en cours aussi qui n'est pas encore complètement épuisé. Mm-hmm. voilà waaw machine bi ci ginaaw dépanneur lañ koy wax dépanneur poids lourd. donc machine bu bees la boo xam ni dafa ñëw ci weeru safar bi semaine bi passé lay doog génn port comme dañoo nekk Touba nag suñu kilifa Ablaye Sylla yónni ñu fii pour ñu liggéeyal sëñ bi moo tax ñu bëgg a barkeelu ci barke boobu ñu indi ko fii sëñ bi ñaanal ñu ci ñu doog koo delloo ndax SMPL mi nga xam ni moo yor entretien matériel Ecotra bi moom mooy yor machine bi tamit am na ci yeneen yu mu ci yor yoo xam ni euh, tey jii mi ngi liggéey ak Eiffage ci autoroute bi nekk Dakar nga xam ni lépp luy dépendance oto bu panne oto bu ndaw ak oto bu mag yëpp ñun ñoo koy ñoo koy gérer foofu te bu jox leen euh, benn chiffre rek foofu daanaka weeru jot équipe SMPL bi nekk foofu dinañu dépender lu mat 1000 véhicules. donc 800 ay oto yu ndaw la ak 200 yoo xam ne ay oto yu mag la ay bis yu mag ak ay ay poids lourds dépanneur bii nag bu bees la boo xam ne c'est unique euh, je peux dire même à l'Afrique de l'Ouest euh, SMPL xëy na moom moo ko njëkk am macha allah donc dépanneur la boo xam ni capacité am 45 tonnes la donc dafay camion bu daan woon ak chargement sax mën na ko yëkkati tegaat ko ci ay pneu bu dee camion mën na daw dem mu daw dem bu dee mënul daw dem mën na koo yëkkati moom yóbbu ko fu ko war a mën a yóbbu ci ci Sénégal te du am benn benn benn Euh, ci linéaire yi nga xamante ni doon nañ ko def biir Touba wa bir Touba li ne riñ fi def mat na 2 km mat na 2 km ci route de sambi def nañ fa 1 km 500 bir daru Xudus tamit ak yenen quartier yi nek Wata Sura def nañ fa lu wara tollu ci 500 mètres donc lu mu néew néew 2 km defar nañ ko ci tali yo xamni tay ji biñuy ñew auto mënu fo woon jaar te léegi japp nañ ni fi ak magal gi ak ba magal gi wessu bu dé amul agressivité bu bu bu ki nit ñi dal nañ fa mëna circuler surtout tali sambi comme niko sama naataango ko waxee woon léegi suñu doyen Samb dafa nek tali bu am importance ndax sëñ bi def ci insister won bu baax a baax ñu gëm ko defar ndax day yombal nit ñi nga xamni dañuy jugee fu melni Saint-Louis Louga Kébémer Darou Moussi parce que route de Darou bi souvent bu amé embouteillage et chaque année non lay démé nit ñi fofu lañuy mëna virer pour dem jël 30 mètres bi mëna ñëw dugg ci biir Touba donc fofu defar nañ ko ba fimu nekk ni ma sha allah nit ñi nañ fa mëna jaar ak seen auto muy auto bu mag wala auto bu ndaw. tudd Cheikh Mbacké mu Serigne Abdou Latif bu ko ci talé bi Serigne Mountakha yi and ak mom liggéey bi ñoo ngi leen di nuyu ci tour Serigne bi madeleine nuyuwaale turu sama mbokk mi ma taxawal sëriñ Issa Mbacke ndax dañoo ànd liggéey bi te naa gën a leeral li tax tudd nañ ko léegi Fallou Seye tudd na ko waaye ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp sant ñëpp wax ji dañ koy tënk rek ci xamle ne yitte yi ak yéene yi président Abdoulaye sila ci dëkk bi ak ci liggéey sëriñ Touba yàgg na ku ko ñi ko xam ñëpp ci loolu lañ ko mas a xam bari na ay xaritam bari na ay bokkam ñu ne ci dëkk bi koo ci wax da lay wax ne la Abdoulaye Sylla bi ñu ko xamee ba léegi ci pasteefu yenn liggéey Sëñ Tuubaa ci la nekk te Abdoulaye Sylla xamoon nañ bu baax diggam ak sëñ Sidil Moxtaar ndax jitteem pasteefam sëriñ Sidil Moxtaar xamoon ko ci moom ba defoon ko doomam defoon ko xaritam maa nag moom liggéeyal Sëñ lu yàgg ba sëriñ Sidil Moxtaar wàcc sëriñ Muntaxa mii bi mu yore liggéey bi sëriñ Tuubaa bi itam waxtu bu tuba Touba président Abdoulaye Sylla benn baat lay wax suñu yitte jëpp nañ ko jëmele ci Touba ba Magal gi jall ren bi Magal gi jubé directeur Assane Sylla mi di sama xarit di sama jarbat mo ñëw ci man déplacer wu ñu bex egsi président Abdoulaye moma yabal ngir ñu waxtaan ci lepp luy tax liggéey bi baax nu ngeen ko bëggee ñu defee ko nona wax président Abdoulaye wax na ne fu ñu am dara chantier yëpp nañ ko tëj fu ñu am matériel nañ ko déplacé mu ñëw Touba liggéey Touba bi rek nay suñu yitte bi ma Assane waxee loolu man wax ko date bi ma yu ñëw le vingt huit ndax le vingt neuf la ñu waroon tàmbali le vingt huit bagages matériel matériel yi bépp ñëw le vingt neuf bi ñu waree tàmbali maa leen joxoon programme mu ñeenti fan yi ñuy balee camions yi dama leen di soxla ci mbalit mi ndax mbalit mi day bari nit ñi day bari il faut ñu jàppale ñu ba mbalit mi génn ba pare ñu doo dugg nag ci liggéey ma ngacc ndox ak sëkk suuf noonu lañ ko defee ak defin wu rafet te bala maa jàll foofu nag dinaa ba sant chauffeur yi vraiment chauffeur jàmbaar lañ lool nangu nañ lool pasteefu nañ lool ci liggéey bi waxtu wu ne dama leen di xool ci biir waar yi di yéemu ci ñoom te la ci gën a am solo mooy ko ci groupe boo ci boole benn chauffeur Ecotra bu ñëwee danañ jàppaar ci loxo loxob chauffeur ba nga leen booleel dina dima seereel ak seenu cant ba bis bi ñuy wàccee rek am na ci safar boo xam ne ba dix heures ci guddi ndax mbooloo ma ñoo ko ne mënuñoo dem te sëñ Cheikh ñëwut te yow it mënuñu fee bàyyi noonu la toogee ak ñoom ma ne ko heure bi waroon wàcc jàll na waaye dinaa ko wax sa kilifa noonu laa woo Fallou Seye wax ko te ñëpp noonu lañ liggéeyee waaye kon bu may dellu si damay jot ci cantu sëñ cantu sëñ Mountakha ci président Ablaye Sylla sëñ Mountakha sant na président Ablaye gërëm na ko ndax xam na yéeneem ci liggéeyal sëñ ba waaye nag nimalul jàmm bi wala tafeexu taale bi mi ngi yem ci